asalaamaaleykum wa rahmatulah del nañu waat ñu ngi nuyu waat ñëpp di siyaar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm euh, koor gi mu nekk kooru jàmm climat moom neex na mais temps yi damaa seetlu ay midi yooyu noonu une heure day affaire day xaw a <laughs> day xaw a bax nii <laughs> tàngoor day xaw a ñëw heure yooyu noonu mais ñu ngi koy gérer ah yi gérer leen ko mais euh, troisième phase bi lay métti muy troisième semaine bi su boobaa ñoom gars yi ñu bëri dañuy bàyyi surtout ki ma toogal day bàyyi ah waaw Seydina day bàyyi borom Amérique. moom day bàyyi mais góor gi mii moom da koy gérer moom ko góor gi moom jàmbar dëgg dëgg dëgg moom day woor koor gi jeex mu gunge un mois waaw day may yàlla yeneen day wo day gunge quinze mayaat yàlla quinze waaw yàlla may nga ko may non da koy lebal de may ko da lebal bu la yàlla fee kontaan de ah. tey moom laa invité gannaaw aada Fass euh, bu Fass Benno ñu def émission bu am solo ci euh, weeru koor gi koor gi ak mbër yi kooru mbër moom la ñuy euh, ñëw tey ñu ngi fii nga xaman ni suma saayit la saayitu kii la après di leen ñëw ci borom kër gi nag kër Jibi caw lañ nekk mair Réfane ma <laughs> wax ma jaar di <laughs> euh, monsieur le maire maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax yow moom man miin naa foofu miin naa la miin naa Réfane ay ngoogoom ñoom ñëpp foofu yëpp miin naa fa macha di nuyu waa Réfane yëpp sama copain tey laa invité xaritu mbër yi xaritu Sénégal xaritu xaritu bi ñépp kay koy demandé ci weer goor gi wulli wulliwaat maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar bàyyee nga nuyu gaa yi. asalaamaaleykum Pape Magat maa ngi lay fay. di fay di nuyu sa caméraman. di sant nag yàlla sunu borom bu baax ci weer koor bi. di ju ci Seydina Mohamed sallallahu di sant sama sëriñ sama wasila sëriñ Modou xabaan Mbakke mu yàgg fi te di ñaanal sama papa yan na yàlla yokk ay leeram taanu ci barkeem di ñaanal képp kum fa fekk ak képp ku fa fekk hmm. di nuy waaree fan ñëpp hmm. di sant fii ma ñëw muy hmm. sama maire muy Djibril Thiaw di la maire de Refane fii fii mooy fii fii ni passé cot kuy fii ngay ñëw cour permis fi ngay ñëw mooy directeur bi nekk fi di fi def liggéey bu am solo mm. di ko gërëm di ko sant mm. tey nag li ma fi andi làmb ma fi andi rek parce que damay teg drapeau Djibril Thiaw Refane incha allah di ko sargal Refane di set mai tegal ko combat bu mag a mag a mag a. dinañ si ñëw incha allah rabbi mais wuli euh, ak koor koor gi la ñuy la ñuy waxtaanee ak làmb bi ngay tëgg muy làmb bu am solo boobu ak sa combat bi nga xamante nii combat boobu moom combat bu saf sàpp la parce que sa adversaire maa ngi ko fekk muy entraîné entraînement yu métti liiru dinañ ci ñëw léegi mais mais wuli dama dama foog ne woon foogoon ne weeru koor gi sa dër bi day wàññeeku mais tey dama gis ne da ngay dóor xaw ma da <laughs> koor gi ni méttee la tey dama gis ne ngay ngay dóor tey moom koor gi man nag dama ñi me naa koor mais tey moom hmm. koor gi daf ma jàpp dafa saf parce que damay yëndu dama nelawul hmm. dama xet rek jóg ànd ak sama bët yi dem nañ instant tey waaw sama tey moom dama son hmm. sa nelawuma lekkoo maaw Cissé soo bële ñoo maa ngi lay ziar TFM maaw Cissé maa ngi lay ziar maa ngi lay ziar bu baax ah soo ba léegi dama hmm. dama nelaw moo tax tey sama bët yi dafa dem dama dama son sa bët yi kañ dem na ah, tey moom sa xel mi dem ba may depuis koor gi tey laay doog a xiif ci koor gi tey nga koy door a yëg sant yàlla waaw door mais mais nag sant yàlla woor boo wooree da nga ko war a yëg Pape hmm. wala yëg. dër bi moom yëg na ko parce que dër bi dafa <laughs> dër tey moom da ngay wax naan nii <laughs> doole ci nga amatul parce que am doole dëgg moo koy dal. si daa métti bi laay métti la. dafa <laughs> ay ñoom Kara Mbodj munoo ko. Fatou Mbaye. Fatou Mbaye. Hmm. Kara Mbodj sama xarit. Hmm. di gërëm Omar mu ku baax la. Fatou li ngay ni koy tudd nii muy métti nii moom du la ci fay parce que dafa ah, métti de. non war a fay de. damay fay bu baax. non faatu day nit ku baax. soxna su soxna moo tax karambooj war ma hmm. am na soxna su baax a baax. Hmm. mais da nga am problème soxna tamit. pour wax soxna da nga am <laughs> faatu soxna. waaw li ma wax nii wala bi ak koor gi day metti de parce que xol ngay waxee. non fii lay affaire du ma nangu di wax lu bari mais nag koor paap dafa am hmm. solo. koor xiiwal dama nekk dër bi ak booy wax xiif bi du metti torop boo jëlee ba day gaa mer nag. mais day gaa énervé nag. day gaaw énervé trop ci koor gi ah. surtout appel yu bari damay damay mer la. wax bi wax wax bu bëri bi. wax ji day métti ak dër bi. trop kon dër bi fi ngay yégee ne metti na mooy ci weeru koor bi quoi. kii soo ba léegi bu may wax. ci weeru koor gi ngay yég ne dër bi métti na quoi. trop waaw métti boo xiifee moom. di dë a mar sax dangay gën a mar. léegi da lay énervé da ngay gaaw a mer da ngay gaaw a énervé da ngay gaaw a mer waaw. kon yow fi mu nekk nii yow liiru bu jàkkaarloo nag yow. ma doon ko ma doon ko ma doon ko waaw. <laughs> waaw fii man dama gaa xeex nag man moom. koor gi da ngay gaa xeex boo mënul wax. Hmm. xam nga ku mënul xuloo. Hmm. da ngay mën a dóor. waaw da ngay gaaw a dóor. même moo tax làmb ji du ma sax leewtoo. Hmm. parce que dama ko tam depuis xale. su may wax sama moroom. su su waxee fukki baat. ma wax. ndeysaan doo mën wax quoi ma ma wax benn baax. da lay merloo dafa miti nag. aussi ah, da lay naqari. c'est un pape dër dër dafa miti. Hmm. dër dafa miti. da ngay bëgg a wax normal. comme man mu ko ngay wax ak nit mu wax fukki baat yow doo mën a wax di dër. te lu ko neex lay wax. te man li ma gën a mel li ma gën a naqari. Hmm. may wax nga may reetaan. Hmm. ah man ne maa ngi ree ba tey. wala man garaaw non non yow garaaw. fi mu ne dóor. contre dafa am ñoo xam ne da dër. dañ lay kaañoo quoi. di lay kaañoo. comme ma ne Fatou moom mu dégg ko. mun ne ma loo wax nga ne. mu lay kaañoo quoi. waaw xam nga xam nga hmm. mais mais mais gars yi ñu bari nee nañ tamit dër bi du dëgg. man moom xam naa la. man moom bi ma lay xam yàgg na torop torop des années man xam naa ne dëgg bi moom dë dëgg la. dër bi moom dëgg la. te koor gi day gën a yokk. waaw <laughs> Sénégal loo wax rek ñu ne da ko yokk hmm. mais dër ak ni mu méttee hmm. ngay forcé parce que der hmm. xanaa xam nit mën na dër sax dee parce que te booy wax yéen mooy dootu nokki doon nay quoi sa baat day cang day cang bi day cang day kon yow booy wax ni sa nooy bi day cang non c'est moo tax nga gaaw a xeex ah. <laughs> loolu dafa métti de <laughs> nga woor xiif ba pare di aj sa nooy booboo gën a metti nag boobu moom dangay gaaw a raag <laughs> da ngay gaaw <laughs> saa yi bu xiifee nii nee na buy wax buy wax day nooy bi da ngay aj yow dangay ñëw rek dóor compte mais non buy aj nag bul dóor de waaw boo dóoree nga def safaan man manuma xuloo waaw ku mënul wax nu muy xuloo mënuma xuloo bu mu bu ñuy xuloo man ak yow ma wax la lu bon waxaat la lu bon nga bëgg a tontu day metti ma door waaw dóor da ngay mën a fayoo dóor yow yàlla boo dóor koo xam ne ku la ëpp doole la boo commencé xeex bi dañ liy dóor ba ngay bëgg a dee ñaari jafe nga am mënoo wax ma mënu ma nag ba pare duma nañ yow dimbali na ma kenn mosuma du duma si xeex parce que man yow dafa def man dama mën naa xeex ñu mel naa ko waaw bi bi bi bi bi may gën xale mosuma xeex sama morom billaahi wallaahi ku doole rek samay mag rek te dama mos a ñime xeex ñime. te yaay gañe may gañe fot la ku ma ma door gañe ma. Hmm. man may gañe te man dama yëg a nekk xale. na hmm. nga yëg a am fit. Hmm. même école. dama doon tooñ samay mag di xeex ak ñoom école. xam nga bu nu jàngee booy wàcc samay mag lay xeex maanaam man yaa daf ma teel a may tur aussi macha allah. kon kay wulli wulli waat bi dala yàgg topp. salfetes la ma doon woowee bu yëg. salfetes salfetes. salfetes. salfetes mooy lan sëñ Saliou laa tudd Saliou waaw waaw. ñu may dëkkante salfetes mooy dafa amoon benn waay bu bu am yaram mais mais xel mi neexul. mais ma ma doon doore nag. ñu ma koy woote man. kooku fetes la tudd bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi maa ma damay gis siiw macha allah. ñu tuddee la woon kooku léegi wulli wulli waat bi si làmb ji la la fekk quoi. Ah, nga ñëw ëndaale say dóor. Ah, kon mi ngay nekk école say dóor nga yor. ñëw kii bi dama yëg a bëgg xeex jànguma xeex mais dama yëg man mënuma xeex dama ko bëgg. Hmm, dañ ko bëgg. dama ko bëgg. des fois ma dégg nga ni maa soor da ngay dóor mu yàgg. ko bëgg da ngay kontaan day mel yow booy xeex da ngay gën a kontaan. dama bëgg dama koy ñime. kii de dootoo xeexateeg moom liiru muy gis mii liiru muy jël poids ak entraînement yu métti muy entraîné moom ak ko rek dinaa ko rek ak Alioune Seye da nga koy bi taxaw na xam naa ne ko taxaw na moo ko tegoon mois de juin la defe naa mai mai mai quinze quatorze mai le quinze mai quinze mai bii bii ah, bii nii ah, ah. ngay tëgg làmb le 17 di bëre le quatorze le quatorze ngay njëkk a bëre le quinze le quinze ngay bëre door a tëgg sa làmb le 17 waaw jël nga risque de waaw saa yi neen da la xiif <laughs> non saa yi fekk la ba télé duma la duma yu met nga arrière jàppandu. suba dama ko daan foofa. daanuwul de <laughs> nee daanu man maa ko woo nee loolu du dëgg. nee na musul daanu damaa bi ma ma ma tudd ak pivisé ko rek mu. nee na musul daanu. bi laa liiru maa ko mën nee na musul daanu. liiru fekk fekk fukki combat maa ko mën. fukki combat yaa billaahi wallaahi maa ko mën. mais mais keroog li ma gis mu wane ko mer bi mu mer ba pare fekk la fi nga nekk. rek commencé dóor rafaal yi moom nag nit ku baax la nag. waaw moom aussi dafa gaaw tàng. mais dala mere. loolu li nga ko def gàmm bi la. loolu nag di ko naxaat te bari. ko dóor ba muy daw ba mu toog. feek muy dee mënu koo faj parce que dama dema ko mën di bi rek ku la mën bête noire xam ma bête noire. bête noire waaw waaw dafa am waaw bête noire day am. ni bala ngay na fi ay bête noire rek. bala ngay àll ñaari bête noire liir ga kon liiru boo leen bëriwaatee da nga koy daan. non ak liiru état bii ma gis si moom. yow moom entraîné woo man maa ko fekk écurie Walo muy entraîné. nay entraîné may nelaw. bu tawul ndaje. dama koy daal yow est-ce que yow xawoo am foo wa jeeg fit bi jëkku kay non dama ko naawtaloo ko da nga ko naawtal dama ko dama ko naawtal <laughs> <laughs> fit parce que liiru yéen ñaar ngeen taxaw poids bi mu yor liiru moo la mën ak liiru ni mu mënee wax liiru jaa est-ce que xam man yàgg naa ko dëkku yàgg na de hmm. laatam bépp xar yaay kat gi fekk naa ko stade dëkk ko liiru jaa yoxo mu yokk si dóor loolu yàgg na. yooyu yàgg na ñu xeex stade. Mhm. police yi ñëw gën a làmb ji. làmb ji seeraanoo ko seeraanoo ko loolu laa ko. meree nga ko dencal moom tam mu mere la parce que liñ ko def gaam bi moo ko naqari. fii may tax. mais ni nga defoon gaam bi ngay defaat. wala bii yoon da ngay taxaw bàyyi ko combat bi. comme dafa am lu ko naqari neex. waaw mooy gën a rëy. Mhm. parce que Sénégal bëree maak moom. seen biir dëkk. arène nationale. jege na ko de. te dama ko daan Gàmbi mu ñëw di wax mu moom a daan fii nag dama koy rey. ndax arbitre moo ko jox victoire. fii dama koy rey nag. da ngay rey. fii ci bu doon daw ba ca man moom la parce que arbitre Sénégal c'est professionnel. Hmm. fii même bu arrière ma dama koy door. même bu demee saako yëpp dama koy door. koy door waaw. pourquoi muy arrière bi ñëwee si digg seen diggante da muy arrière non non bu arrière laa dama koy door mais arrière stratégie duma arrière dama taxaw ñu reyante bu arrière dama koy door même bu jege saako yi dama koy door. ma ñëw sax ñu aj la. kenn du ma parce que mooy arrière. ah non non non non. lam dina war a def. kuy arrière bu dem bu arrière daw jege saako yi ñu door la. bu arbitre bi arbitre arrêté nga dóor. bu waaw foofu coup irrégulier la. dañ lay war a teg ay daan na ma tegi daan waaye bii mooy gën a miti. jaral na la ko na taxaw non daa war a taxaw ñu bëree nu muy arrière. waaw ah, baax na en tout liiru bi ma gis nii moom moom moom pare na te mere na la ku la fekk ba télé di xeex ak yow. <laughs> waaye na keroog ñu newut saay <laughs> fu ma ma duma ko keroog dama ko bëggee dama bi ma ma puyte ko saxane ko fe mu daanu fu mu fa fekk ma jox ko. léegi yow liiru daf la def ay ree <laughs> ay ay réew dama koy mais nag mais nag aussi nit ku baax la. xool bu xam nga dama ko jàpp. son papa def gaañu mu ñëw ree fan. dëgg maam xew ngente. kenn jëkk ko fa non nit ku baax la. non kooku seen nit la kooku seen nit la wax dëgg yàlla seen nit la. suñu bëree bii ba pare suñu bëree bii ba pare vraiment. dootuma bi moom nag. parce que bëgg nga ko tuddee doom wala la doom. man daa ko tuddee doom baax la parce que même bu ko tuddee doom doom ju baax lay parce que nit ku baax la. xool bi dafa rafet. Mm. xol bu rafet la yor nag. Mm. yaa ngay na yaa ngay kii de. non non mere na lay si làmb jii de. mais xol bu rafet la yor daa mel ndaxanteeg moom. yow nag da muus. da xam fooy jaar sa adversaire yow da nga muus. <laughs> fii nga dajeeg biig pato. 1000 francs bi mu la jox pour nga fay taxi bi moom nga yóbbu ca sëriñ ba <laughs> mu ñëw làmb ji weer di. nekk fa ngay duma rek. <laughs> <laughs> alors euh, Wouly euh, koor gi ba mu commencé ba tey yaa ngi koy woor. Hmm? Mm-hmm. Euh, ban jour yi léegi nag heure entraînement yi naka lay demee ak ci weeru koor gi nii. waa pap man nag woo dama ko fonk. Mm-hmm. même bu ma amee combat. Mm-hmm. su ma waree bëre dimanche. alxames damay woor. alxames da nga koy woor. avant combat avant bi damay woor. Hmm. ne yàlla maa ngi lay wooral. Hmm. dama bëgg ndam. Hmm. su ma yàlla mayee ndam ndax xanaa ma ne sa sama xabaar bi poto. ba ma ko daanee ba set damaa woor. da woor wallaay. boobu sax yaa ngi doon wax yàlla man la faral. waaw ni victoire bi rëy parce que yàlla suñu borom ci yoon. sooy wuuti dara. ñaan ko mu la. li ko da nga mooy nga wooral ko. benn fan. sant ko ci. day tax mu dolli la. mu gën a doon man su may amee combat damay woor. Mhm. su may dugg ci dara damay woor yàlla ñaan ko. Mhm. dafa dafa am solo Pape. Mhm. Pape naa ko essayé tey nga bokk dara jël benn suuna te tey yàlla dama lay wooral. nga may ma nangam. parce que boo nee pour. Ah. day mel ni loola tax. dama lay wóor a tey. kuy wut dara di la ñaan. kuy wut dara kañ. mais boo ko ne mais foofu nga koy jaaree. waaw man nag man moom bi may may dama ko ne may ma. waaw mais. boo ma ba ne nga woor na ko yàlla maa ngi lay wóor a tey. waaw mais damaa bëgg nga may ma. waaw woor kañ pour nangam pour nangam gi nga bëgg pour combat bi nga bëgg a daan. waaw ah, ah, man objectif bi loolu la di. damay damay am combat. Hmm. man man yàlla maa ngi lay wóor a tey. Hmm. su ma daanee. dinaa warat ñaari fan gërëmee la ko te war naa la benn fan soo mayee ndam dinaa war a ñaari fan gërëm la ko hmm. soo may ndam dama ko waral est-ce que du loolu moo tax naan yàlla sama xarit la saa yu ma ko ñaanee mu may waaw ku baax la sa xarit la man yàlla laa gëm hmm. parce que mooy may macha allah macha allah man suñu borom hmm. alors ñaata séance d'entraînement parce que dama waxoon dama koy tudde doom xoolal yàlla si boppam ma bëgg ko tudde doom sama soxna om am doom ju góor suuru gàmm. jur gàmm loolu mooy. tuddee ko yeneen rek moo tax yàlla sama. li nga wax lu garaaw la de. da nga ko bëggoon tuddee boo doon tuddee sa doom yàlla noo koy tuddee. yaa Fataaxu. wala yaa ah, Karim. yaa Karim. Uh-huh. Mm-hmm. Abdul Aziz mm-hmm. Abdulaha. tur yu mag yooyu. yaa Karimu. waaw mais yàlla laa koy tuddee. Mhm. mu bàyyi ba suurub gàmmu mu may ma doom bu góor. si suur gàmm gi si suur gàmmu ren. loolu mooy. wax naa ak yow Seydina Mohamed mooy sama xarit. wax naa ak yow de. loolu de xanaa dafa mel ni mosoo ko wax de. ma ciy sant yàlla. dafa mel ni loolu mosoo ko wax. sama ngente boobu da nga ko la laa ko mos a wax. te mhm. dafa garaaw loolu loolu mhm. dafa maanaam. te dama waatoon ne dama koy su ma amu woon doom sur jour gàmm yàlla ko tuddee moom nga koy tuddee mhm. waaw ku nekk mën nga tuddee yàlla doom de yaa karim yaa razak yaa rahman yaa rahman yaa rahim yaa latif yaa am na ñu tudd latif waaw abdou latif am na abdourahman turu yàlla la noonu jàng nga nag yàlla man damay toog di ko ñaan da am benn communication direct ak moom. waaw c'est xool téléphone bi. <laughs> yow da nga garaaw le li moo tax ngay nax ngay nax liiru di ko daan rek. <laughs> alors wuli ñaata séance d'entraînement lay def actuellement nga jëm ci ko benn. benn ndax la sama benn yoon rek kese sama contact la wala saal wala géej. contact gu ma. yaay xool daal noo koy entraîné. tey géej suba saal. Hmm. tey géej suba saal. bu nu contact. Hmm. Euh, koor gi li nga daan lekk day wàññeeku wala day yokk man nag aussi dama tam hmm. woor même bu dul koor hmm. comme ni ma xëyee sama kër hmm. xet gën bu ma xëyee sama ndëkki boobu saa yi ma fay dugaat sama kër du ma lekk duma naan man tam ma lekk ci mbedd tam ma lekk kër jàmbur yow mii nii waaw sama kër dama ko wax sama biir sa kër rek bu damay xëy dëkk sama kër gën boo wiitee ci guddi su ma jugut sama kër du ma naan ndox duma lekk dara. est-ce soxna si moo la koy tere dafa fiir wala. non dama koo tam. wala da nga bañ a lekk feneen boo ñëwee. mu jox la lekk ah tam la ok bu ko tam. sa biir lu baax quoi. Mm-hmm. mais nëmbal laal rek di lekk lekk. te man aussi man aayuma lekk. Mm. tey bu ndogoo rek. pare nga ci lu xëdd laay lekk xëdd ngay lekk ok euh, wuli jàng na ba ba wàcce kaamil wala. non jànguma. jàngoo jàng naa alxuraan bi may xale xale ba ngay xale. mais après sama papa dugal école. Mhm. Mhm. Euh, ban saar nga ma mën a taril boo xam ne muy saar boo bëgg la. lixlaas. a taril ma ko. bismillahi rahmaani rahim. allahu ahad allahu samad. lam yalit walam yuulat mu yakun na fan ahad lan moo tax nga bëgg saar boobu parce que day wax yàlla mooy buur yàlla kenn la mhm. maanaam yàlla mooy tagg boppam mooy wax boppam waaw dama dama bëgg dama bëgg yàlla da ko bëgg bëgg nga yàlla de da nga ko faa ah, wala bëgg la wala faa non dama bëgg yàlla hmm. yàlla trop parce que lu ma am rek moo ma ko yaa ngi koy jox li mu moom juróomi waxtu yi waaw yaa ngi saraxe baax sama xol rafet na maa jàppale. waaw yow moom sa xol rafet na yow sa xol kañ si kenn rek la ñaawee. liir waaw du rek loolu la wax dëgg <laughs> du ma euh, liiru euh, tey boo doon ñaan ñaan ngoo xam ne ci weeru koor gi da koy ñaan lan la la xamante ni sa xol la nekk ci weeru koor ngay profité chaque jour nga koy ñaan yàlla lan lay doon. ci man wala ci réew mi. je sais pas. man moom damay ñaan yow yàlla may ma wër. Hmm. ma yàgg fi. da ngaa ragal dee. waaw parce que dama ragal dee parce que. lu tax ragal ko yow mi xaritu yàlla. sama njaboot Pape. ah dama damay toog yenn saa yi may may xalaat. sama hmm. njaboot tey bu ma dee woon nuy def. fan la ñuy nekk. ay dañu maa taq. Hmm. mbay Diop Mouhamed. Hmm. Ndeye Mariam maanaam dañu maa taq. bu may ñëw nu daw gàttandu ma papa papa. ma may ma xaay xam nga dañu ma taq. may chaque jour damay ñaan yàlla. li ma may gudd fon gudd fan ñu lay gis. ñu may gis. Mhm. parce que mhm. parce que événement bu jotee mhm. maanaam dañuy firi parce que man dama bëgg njaboot. dama leen di sañseel loo xam ne. seeni i moroom kenn du ko ci am. bassin bu seer. ñëwal leen ñawi mag. defal leen lu mag di def maanaam. ni ngi leen tàmmal la quoi ni ngi leen tàmmal ñuy dund lu ñuy dund baax. Mm-hmm. chaque jour mu may dem xaalis ay 1000 mm-hmm. francs téeméer nee doon jël lu ngeen bëgg. mais ñu nga leen école ak ñu ngi jàng alxuraan ngi jàng alxuraan. ñu ngi jàng mm-hmm. français. maanaam man dama bëgg yàlla mu bay ma ak sama njaboot. mu bay ma ak sama njaboot. ba ma gudd fan lool. loolu ngay gën a ñoom aussi ñu fekkee sama njëriñ. Hmm. may ma fekkee seen njëriñ. Hmm. yàlla nag di ma yokkal sama xiiwal. Hmm. yu ma mën a te teere sama njaboot. noonu la sa soxna mel si yow. sama sali moom dafa ma bëgg a bëgg bëgg ba dama koy. yërëm naa fa xam naa ko. sali da ngay xool rek. sali dama ko bëgg a yóbbu. makka mu siyaar yi. sali moom ci boppam. waaw incha allah comme yàlla def na juróom juróoma Seydina Mohamed bëgg naa ko yóbbu mu incha allahu rabbi yàlla yàlla mun na ko léegi nag boo day ñaan dara pour Sénégal lan ngay ñaan jàmm hmm. jàmm ci réew mi hmm. Pape hmm. di réew mi jàmm rek laa ci ñaan alors leneen leneen li ma lay laaj wulli dégg naa ne wulli moom rek moo bëgg bëri mais seen waa kër ñoom ñëpp dañoo tekki am na ay magam yu nekk bitim réew. <laughs> waaw ñu yor ngan di man ñëw naa sa kër moom. waaw kër gi moom toll na ne école bi. macha allah rabbi mooy kël yi nekk ci dëkk bi rek ni ñuy rafetee macha allah mais sa mag yëpp ñu ngi bitim réew mais yow yaa bëgg làmb rek quoi. loolu dëgg la sama mag Tafa. Mbay. Hmm. Mbay hmm. Diop. ñoom ñett ñëpp ñoom samay mag lañu. dégg naa nee nañ la ñëwul ba sonn ngay leen. Moustapha Diouf non man. Hmm. yàgg nañu may wax. man su ma bëggoon bëree. Hmm. ah su ma bëggoon tukki. tukki 2005 laay tukki. kon yaa njëkk a tukki liiru. bon bu yàgg sama mag mu ngi dem Italie 2018. lan hmm. la dem Italie. 2018 wala 2008. 2018 2018 la dem Italie. Hmm. bëggoon ma yóbbu 2004. ma ne ko ba bay ma fi waaye. ma rek ba bay ma bëree. xëy na boobu yàlla sunu borom. namoon na ne. damay nekk stage si réew mi. Mm-hmm. dama fi laay xam nga yàlla suñu borom. Mm-hmm. day day gis yow lu yàgg. te doo gis programmé loo xam ne yow. boobu man nekkuma star mais. Mm-hmm. so soo mag na ma tukki man ma ne ko non bay ma te boobu. boobu neexul de. boobu Dakar neexul. mais ma ne ko bay ma bay ma fii ah, bay ma. mu yóbbu soo beneen mag. Tafa. Tafa mu ngi ko yóbbu 2007. mais yàlla may na ma loo xam ne. ñoom ñu ñëw ab xaalis même may leen ko. tur bi sénégalais yi bëgg la tey yàlla may na leen xaalis. Mm. mais man yàlla may na ma ay nit yoo xam ne. Mm. lu nuy la janti. Mm. man la ñuy woo ma janti ko. Pape la am solo yàlla la may lool. yàlla may ma tur may ma nit ñi bëgg ma. ma am kaddu ci dëkk bi. xam nga. loolu rek nee lool loolu loolu li ma tax. wala nga tukki moo la gënal xaalis bi ngay am ci làmb ji. maa ma papa maa ngi am xaalis. Mhm. te am na samay moroomi moodu Modou ah sama moroom yi nekk Réfane nekk Modou Modou. li mhm. ñu ñu ngi Italie maa ngi fii. Mhm. li li ma yaram may may leen ko. dëgg la wërsëg. am naa saala am naa sama terrain. am nga oto yor naa sama oto. di gis sam njaboot. di bëggal réew mi. am nga sa liggéeyu bopp. di bëggal réew mi wala di business sa bopp. di may business. loolu laay business waaw. lu ne ngay jaay. lépp may business. da jaay nit. non ak jaay ma lenn luy tere nag. da jaay mbaam. lépp luy tere lu luy tere lépp lu luy. jaay xaj. bon jaay ma lu tere tere. Hmm. jaay ma lu bon. Hmm. mais lépp lu. yaa ngi business daal business quoi. alhamdulilah kon wuli ay ciment. Hmm. bu bëggee ciment daam ngor laay woo. dem na ko ki laa bëgg ciment ak fer. su ma bëggee terrain ma dem ci. Euh, Ibrahima Diop. Mhm. Kajoor immobilier. su ma bëggee passé permis man ak. ma boole ak Dip Thiaw am permis rapidement dem suñu yoon. mais si yoon nag lañ koy teg nag de. moom si yoon gi après nga ñëw wuti permis ah fi ngay fi ngay fi ngay jànge code ba mën. yow Dip Thiaw rek nga may wax. Dip Thiaw kay man xam naa code ba nga mën. code dañuy jàng da ngay jàng code de. waaw waaw normalement man moom mën naa code jàng naa ko ba pare man damay ñëw rek passé. xanaa góor gi moom mooy ñëw jàng code. Ah, parce que moom xamul code. <laughs> Ah, wuli kontaan naa émission bi neex na spécial koor la dañ koy baaral rek tey dañ ko baaral rek xool njàng mi fi mu toll xool ci làmb ji xool tamit un peu réalisation ak xool tamit noo toll ci suñu borom surtout weer koor gi yow moom yàlla sa xarit la ñu ngi lay gërëm bu baax a baax a baax a baax ñu ngi lay jaajëfal da ngay dem Réfane wala fii ngay ndogoo. fii laay ndogoo. Hmm. Kër Massar mais di woo waa ci bés bi. bés bi astafurlah le 17 le 17 mai mais incha allahu rabi. drapeau sargal Djibril Thiaw Djibril euh, mais Omar Sow. Hmm. Pape hmm. Omar Sow. Omar Sow. Omar Sow woo naa ko ñetti yoon. waaw ku baax la. Hmm. billaahi wallaahi nit ku baax la. sant Sow baaxul de. Sow ak Diallo. non Omar Sow mi moom baax na. Sow mi yeneen Sow yi mais ah, Omar Sow bi man de musuma gis eh, loolu. Omar Sow mi moo gën ci yow nit kuy def social Pape. Sow Sow ak baax damay teg mu ne ma Dib Thiaw sama xarit la. Mm-hmm. Dib Thiaw laa laa tuddee drapeau. Mm-hmm. mu ne ma mm-hmm. boo tuddee Dib Thiaw drapeau sama drapeau la. dinaa la jàppale. maay fay mbër maa maay jën billet yi mais Pape ki la defal lii kay. Ah, borom Odis groupe international. moom saw bëgg président non Omar Sow président Macky Sall di ko war a gën bilaay walaay tala mooy doomu Bambey dëkk Bambey bëgg Bambey non kaay nag Pape am na nu yori milliards hmm. kenn xam seen kër duñ def benn social ci réew mi réew boo ci nekkee biram may la xiiwal may la warsak hmm. da nga ko war defaat ci réew mi waaw dëgg la Omar Sow li mu am lépp mu ngi ko bokk ak doomu aadama yi bëgg sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul su ma magal jotee mu moo ca gën gamu moo ca gën bu reefaan jotee reefaan moo ca gën lamb ji moo ci gën ñooy bëree combat yi Saalum Saalum laa andiwaat Saalum Saalum loolu retour Saalum Saalum borom Kour Baye Fall te mu ngi def entraînement yu miti nee na ma damaa bëgg def sama retour reefaan moom moo bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu moom buur siin meen. waa buur siin bu bawal. bawal ka mbaa bu tàng jir. saalum saalum buur siin. waaw buur siin kii moo ko mujjee daan. Euh, moom non moo mujjee daan. ngeer waaw moo mujjee daan ngeer dafa jóge si defet daan ngeer. moo daan diggam aussi Amadou Tidiane Fall. Amadou Tidiane Fall directeur DMTA. Hmm. nit ku baax DMTA. Hmm. xanaa si partenaire yi la bokk. non wala nga koy gërëm rek DMTA. sa yow da gërëm gars yi ba pare. gars yi xam ah, wax dëgg yàlla xam nga DMTA. lépp luy matériel état bi. Hmm. foofu la nekk. Hmm. nee na ma bâche. Hmm. barrière. tribune. lépp maa koy añ reefan ba pare. kon woo ba pare jox la sama enveloppe bu diis. dóor bi de daal na. Amadou Tiam non Amadou dafa baax. bi moom dal na moom bii Amadou Tiam Fall moom dóor bi moom dal na moom. Amadou Tiam Fall <laughs> ak Lamine Ndaw mu ngi dem te yaa ku baax. kooku dam jàpp na ci. Lamine Ndaw hmm. DMTA. Hmm. moom nag nit ku baax la. Hmm. Pape Gueye DMTA. incha allah rabi oh, ñun danañ ñëw oh danañ ñëw bu soobee yàlla dinaa dem DMTA. waaw il faut nga dem dam leen def si man dara. Ah, mais Jibi Thiaw maa ngi koy jaajëfal moom xam naa ko non nit ku baax. fekk naa ko reefaan ba taay ah, góor gi maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax moom dafa war a dem ndogu ji. Ah. góor gi baax ma war a dem ndogu ji man man damaa bëgg a dem ndogu man maa koy jégalu kay yow nga war a dem ndogu ji. mais dëkk bi moo xat rek. Euh, sant yàlla rek alhamdulilah maa ngi lay remercier bu baax a baax. mon ami laa lay wax. parce que man ak yow du tey ça fait des années des années est ce que matul dix ans. ëpp na ko ëpp na dix ans moom. Ah, yàgg na dem naa këram fanaan naa këram moom mii. ba pare mu teral ma damay teg fan. Hmm. drapeau Kouthia. Kouthia Samba Sine. Kouthia ah, dama koy moom d'accord na kuy bégal nit ñi moom dañ ko war a bégal. Kouthia dama koy. woo sargar lay fan. Hmm. tegal ko drapeau le bi la wala beneen date lay le 17 defit marraine bi sama yaay Oumy Ndiaye. Oumy Ndiaye mooy kan secrétaire général GFM. kooku ah Oumy ah, sa waa sama yaay nit ku baax. sa waa kër la mooy Oumy Ndiaye. Hmm. mooy sama marraine d'honneur. sama yaay. sama yaay Oumy général. kon le groupe Futurs Médias le 17 incha allahu rabbi kenn du des man maa ngi fa man a góor gi ñu ngi fa ak Seydina incha allahu rabbi dañ dem reefaan def fa lu lu doy waar ñaari fan la ñuy fanaan si. non de yéen la kees ngeen ñëw la 15. le 15 ñëw xar yaa nga fa. jeex na ginaar yaa nga fa lépp xam naa foofu yow it wax loolu. ku caa moom naa fa ñam naa. dama bëgg a def reefaan loo xam ne mosut am reefaan. ñam naa teraanga reefaan. TFM. day ñëw def ko en direct. incha allahu rabbi. ñun tamit dañuy def en direct Sénégal Sénégal yow en direct kay. incha allah Sénégal day direct. incha allah bëgg ñu def en ah, direct waaye na en direct ngeen ko def. incha allah Sénégal reefan. du ñu am problème ak kenn. reefan Sénégal da nga def en direct ngi ñëw ah, reefaan en direct ci journée bu mag boobu nga xam ni ah. Saalum Saalum moo koy bari ak Bour Sine combat bu mag la ah, ak kilifa yi ñu ko tuddee incha allah loolu yëpp nee ci dellu bu soobee yàlla góor gi ñu ngi lay jaajëfal di jaajëfal wulli wulli waat sama xarit sama sëriñ mhm. yow moom su ma gaayan nga yow lii yëpp samay samay gaayan ngeen <laughs> mbokk yi jaa ngeen jëf kon rendez-vous prochainement mhm. kooru mbër ak beneen invité incha allahu rabi ci fan yi rek am na ñaar ñoo xam ne war nañu waxtaan ak ñoom mhm. benn mbër boo xamante ni yow xam nga ma xam jaa ngeen jëf à plus incha allahu rabbi. mais eh, kii ku baax la Omron nuyu ma ko. Omron na ku baax la ma femme. c'est très bon femme. incha allah sa ta femme c'est grand cœur. qui euh, euh, sourit beaucoup. qui sourit beaucoup. merci. <laughs> jaajëf merci beaucoup. Maguette.